ay ca mbokk yi mi ngi noonu diggante Kewel ak Albouri ndeysaan arbitre baa ngay laaj ay ndax pare nañu combat bu doy waar ngi nii mbokk yi komba bu nar a neexe ngi nii combat lay doon ci biir combat yi Albouri la ñu lool ma ngay ñaan Kewel moo ñu woon gannaaw arbitre ba soufflé na wàcce na loxoom dagg na jéng ya génn na seen diggante ñoom ñaar ndeysaan ñoom ñaar ña ngay déglu wante xaw nañoo sorante tuuti Alboury ak ki nga xamante ne bii mooy kéwél kii Bawol la jóge ki jóge écrit Grand Dakar ndeysaan Alboury ngi noonu moom lañuy ñu lool moo takk li nga xamante ne bii mooy morceau bu weex bi ci ngemb li ay ca Alboury Alboury Alboury Kewel mbokk yi ndeysaan ña ngay lewaatoo Kewel a ngi dagg bi di def ay déplacement Alboury ak Kewel Alboury cokaas na ndeysaan ñoom ñaar face à face nañ face à face bu neex attention Alboury eh Kewel door na gauche droite Kewel door na gauche droite léegi taxawaat Alboury remise mais dalul Alboury remis na mais dalul ndeysaan mbokk yi Alboury ngi dox ci kawam Kewel door na laay laaxee la laay Kewel Kewel cok Kewel ñam na ko gauche ndeysaan mbokk yi journée Albourakh sa la attention ndeysaan Alboury Alboury ngi jéem dox ci kawam Alboury Kewel eh Alboury door na gauche droite daje nañ attention placage laa ilaaha illallah mboot hey jeex na laa ilaaha illallah hey daan na Kewel mboot na ko daan na ko Alboury daan na Kewel hey laa ilaaha illallah Alboury përee daan na Kewel jëlal jëlal xacal Alboury daan na Kewel Alboury daan na Kewel ndeysaan Alboury daan na kewel ndeysaan xool ko jël ko raja xiis taj raja ki ma yën dégg loolu tas suus suus suus guus guus taj guus guus taj guus guus tas mbax rogin tuy cey Alboury taj na faafa Alboury nga noona ndeysaan mag la ci jaw fara ndeysaan mi Weuz jàmbaar ngeen jàkkaar lool ndigal moo leen won ginnaaw mbokk yi ndeysaan Weuz jàmbaar ak ndigal Weuz jàmbaar ngeen jàkkaar lool ndigal moo leen won ginnaaw day Albourakh Events woo ñu fi Weuz jàmbaar ngeen jàkkaar lool ndigal moo leen won ginnaaw ñaari mbër yaa ngi lewtoo Weuz cokkaas na Weuz jàmbaar ak ndigal ñaari mbër yaa ngi leewtoo ci diggante Weuz Jambar ak Ndigal Weuz Jambar ak Ndigal Ndigal moo leen wan ginnaaw Weuz Jambar ngeen jàkkaarloo mbokk yi ñaari mbër yaa ngi leewtoo kurbeñ amagul cong amagul Weuz jàmbaar ak ndigal ay ca arbitre bi àtte na combat bi ca at bi sifle war na ci diggante Weuz Diambar ak Ndigal Ndigal wan leen ginnaaw biñ ñu casé fii lañ waroon a teg fii policier teg fii policier bu làmb ji commencé ñu ne bu kenn jàll mbër ngi leew too ba amagul tong amagul daje nañu ndigël doon na léegi daal di taxawaat Weuz Diambar ak ndigël Weuz door na léegi kenn nanguwul jël sa responsabilité ñoom ñaar ñëpp faaw kenn jël responsabilité am Weuz ak ndigal ba tey calcul bari na pël li ñuy calcul ñoom ñaar bari na Weuz door na dooraat laa ilaaha illallah ndigal ne tekki tekkaaral ah si boor ah si toor atte na nee leen ñëw leen Weuz am na benn avertissement ndigal am na benn avertissement ay ca sifle waat na ci diggante Weuz jàmbaar ak ndigal ñaari mbër yaa ngi xeex ci kaw Weuz jàmbaar ak ndigal face to face ba eh eh Weuz door na dooraat eh Weuz Diambar ak Ndigal Weuz Diambar ak Ndigal ba tey arbitre atte na arbitre atte na lu mooy xew ku ci nekk am ngeen ñaari avertissement ay ca sifflé waat na Sitor a koy arbitré mi-temps cinq minutes yàqay ca mbokk yi digal ben digal digal ak wës jàmbar ndeysaan mbokk yi ndeysaan attention mboot lay laaxi lalla mbot ma àgg na wala àggul attention ndigal la ngay door la ilaha illallah ndigal wal jàmbaar wal jàmbaar bot na ko war na ko ndomba xale ba rëcc na ay ndigal rëcc na ndigal rëcc na ca war ndomba ba mais ndigal ndigal champion la ndigal rëcc na ca war ndomba ba la ilaha illallah oh oh oh oh nañu arrêté musique bu waay ndeysaan ndigal wal jàmbaar ah ndigal moo woos jàmbaar moo waroon domb ndigal rek ndeysaan bare nañu lu neex ndeysaan woos dafa aj loxo bi jaar ci poxotaan bi def demi flexion doon ko bëtt wër kon domb xale bi rëcc ndeysaan mais tamit poids bi ci la bokk ndeysaan mbokk yi ndeysaan ma nga noona ndigal woos jàmbaar ndigal was jàmbaar Tapha Tine noonu du romb. cey naar kenn du yow. waaye fi ñu rek baaxut moo tax ma doon wax ak ñoom. ndeysaan mais négocier nañ ba sonn. mais fii doy na was jàmbaar. ndigal was jàmbaar ndeysaan mbokk yi. ndeysaan Weuz ndigal Weuz Diambar ak ndigal jàppante nañu lu déglu wante ndeysaan le grand ndigal ngi door ci suuf ndigal a ngi door Weuz ngi jàpp Weuz ngi defar Weuz sëgg defar gis nga dugal na benn épirkit ndigal dóor mu sëgg ngi wax ak ñoom arbitre ñi lu ñu mën si door ndengeñ bi ko ndigal ndengeñ bokk na ci di ko sonal moom wës jàmbaar waaw waaw ca put ba la ma waa seen teg seen siré ñooñu teg di romba ko rombaat rek kon daal joomi naa ma nga wëz fu ndigal teg bopp bi moo ko empêché moo tax mënta liggéey. moo ko empêché mbay ba ndengeñ ndengeñ ba dafa sax. ndeysaan dafa jël bopp bi teg ko ci ci booli uh-huh. nag CNG lañ ko doon tere gis nga. ndigal la ngay ndigal na ko sees daan na ko. wax kese nga ci amoon. o oh, oh, wëz gaañu na wëz wëz jàmbaar daan na ndigal. wëz jàmbaar daan na ndigal ma ngay soox. lay laaxi la laa oho mbokk yi diggante Thiatou Daouda Fall ak Coly ñoom ñaari ñoo nekk noonu ci biir géew bi ak ñetti arbitre yi ci kanam tuuti ñaari arbitre yi dañuy génn bu ñu génnee mu des benn arbitre ak ñaari mbër yi ndeysaan mi ngi noonu Thiatou Daouda Fall moo ñu moom la ñu jàkkaar lool Coly fay moo ñu woon gannaaw ngemboo ngemb lu vert li ndeysaan ki jóge Géejawaay ki jóge Caaroy ndeysaan ñu ngi leen di xool ñoom ñaar ndax niin nan wala niinuñu ndeysaan caatu Daouda Fall ak koli fay Faye ndeysaan Coly nag di mbër ba nga xamante ne bii dafa jóge ci ay defet moo tax tey amul droit def erreur ca daaw dafa di xale bu nekk ci yoon macha allah. arbitre baa ngay laaj ay jugeem ndax pare nañu su paree day laaj ñaari mbëri ndax pare nañu su paree day sax sufle bi sufle sufle na ñoom ñaar ñu lewaatoo demee wette saako yi lañ jëm lewaatoo nan ba ca wetu saako yi ku nekk dër caatu Daouda Fall Coly Faye ña ngay lewaatoo attention Coly cokkaas na caatu Daouda Fall fay Faye ndeysaan mbokk yi caatu Daouda Fall ndaanaan la xale la mais dafa mën a bëre Coly Faye dafa war a ñëw wane na ci lamb laa bokk ndeysaan gis nga Coly ngi dox ci kawam Coly ngir dox ci kawam attention Coly door na Coly door na laa ilaaha illallaah kole door na Coly door na attention Coly kor na di door attention caata ngay liggéey caata ngay jàpp caata ngay jàpp xaadim caata ngay jàpp jege nañu saako yi caat jàpp la bëgg attention caata Daouda Fall Coly Faye journée Baye Ndiaye borom even borom alburax even ndeysaan bokk yi ndeysaan attention jege nañu saako yak waaw waaw Coly dugaat na Coly génn na dugaat caat def na demi flexion da koo bëgg a tibb laa ilaaha illallaah hey Coly plaqué na ko mu bañ ko mu bañ hey caat mi am na doole de caatu Daouda Fall mi am na doole. mais mais lii mais xale bi liggéey na de. dafa taxaw. laa ilaaha dafa pare. Ah. li yaram ak doole du benn. xale bi liggéey na. macha allah mais caat Daouda Fall mi attention nañ ko bàyyi xel. avantage mel nii daw ak yow ba génn saako yi mënuñoo daan mais am nga doole xale bi am na doole ndeysaan ñoom ñaar ñamante nan ndeysaan ñoom ñaar ñamante nan mais ñi ngi se ñi ngi gis ay signe de fatigue ci qualify mais mais boo xoolee action bi dafa dépendre beaucoup d'énergie dafa maanaam dafa dafa énergie bu bëri la la joxe. du loolu moo tax tey mu génn ñëw si waat nga commencé gis li nga xamante ne mooy signe que Coly ni mu bëree woon léegi dina bëree waat na attention attention arbitre suuf la waat na ñoom ñaar ñu daje daje nañu jàppante daje nañu jàppante ndeysaan ñoom ñaar Coly Faye caatu Daouda Fall attention Coly Coly lan la bëgg Coly ngi door ci suuf caata ngay bët Coly ngi door ci suuf caata ngay bët ndeysaan Coly Faye caatu Daouda Fall caati sengoor yi la jàpp sengoor yi topp ko caatu Daouda Fall Coly Faye ndeysaan ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi déglu woon te ku nekk ngeen a tekk di déglu sa morom xaadim caatu Daouda Fall Coly Faye ndeysaan ñoom ñaar ñoom ñaar ñu ngi wure ci suuf ndeysaan ku ci nekk nga wut ngemb ku ci nekk da ngaa ndengañ ba pare xañ sa morom sa bopp sa bopp mbokk yi caatu Daouda Fall ak Coly Faye ndeysaan macha allah mi ngi noonu ñoom ñaar ñu ngi déglu wante Coly jàpp na dër rasu xañ ko boppam arbitre sëfle na arbitre sëfle na caatu Daouda Fall Coly Faye ndeysaan mais Coly mais Coly li mu bëggoon dafa mel ni caatu Daouda Fall mayu ko ko Coly dafa bëggoon rek arbitre sëfle mu daw jàpp xale bi daan ko attention Coly Faye caatu Daouda Fall Coly Faye caatu Daouda Fall attention laa ilaaha illallah Coly Faye ci Pape Ndoye la mujjee ca Daouda Fall mujjee ci kaw Gourdin ndeysaan attention Coly Faye door na ey Coly Faye door na door ba dal na Coly door na cat bëtt na ko ca daan na ko cat Daouda Fall daan na ko bëtt na ko kal ko daan ko laa ilaaha illallah gàccey door gàccey daan fay na ko gàccey door gàccey daan fay na ko ay Coly Faye ay Coly fan la jëm Coly fan la jëm fan la Coly jëm moom a jaaxal moo ma jaaxal. looloo jaaxal ñëpp. fu mu jëlaat moo ma jaaxal. trois défaites défilées mais il n'est pas de mérite. Fass ko lu mën a am la. Daouda Fall daan ko. kilifa yi ndaanaan la. ndaanaan la mais naka laa ma jàppale kilifa yi. mais oh, kilifa naka laa ma jàppale. Oh. làmb gi noonu. dafa làmb la daa bokk ci tey dafa engagé woon. mais ko jàppalee. tey dafa décidé daa bokk ci làmb naar. mais li ko gën a daane force action ci la bokk. force ak chose la bokk pare booy dafa dem ba xam ne carrément kii amul lu ko mën a déranger tey moo tax mu vidé ko mais Coly Faye yi neppa oho oh, jëlal Coly ndeysaan Coly Coly jommi na ay ca mbokk yi ñu ngi noonu ci combat spécial bi avant ñuy àgg ci daj dëpp gi nag combat bi moo dox suñu diggante ak daj dëpp gi diggante Marley ak Mbaye gi Gui ndeysaan mbokk yi combat bii rek mënoon naa feesal arène nationale lii rek grand combat la Thierno ndeysaan mbokk yi diggante Marley ak Mbaye guy gi arbitre baa ngay wax ak ñoom ndeysaan di combat ba nga xamante ne bii mën nañ cee gis bëre mën nañ cee gis xeex ndax ñoom ñaar ay ndaanaani làmb lañu Marley ñu woon gannaaw ñu jàkkaarloog mbay guy gi ndeysaan mbokk yi Marley mbay guy gi arbitre baa ngi leen di laaj ndax pare nañu ñoom ñaar ay waay arbitre waay arbitre soufflé na génn na seen diggante ñoom ñaar ndeysaan cey Franc ngay foofa Franc ngay tuus lu neex ndeysaan mbokk yi mbay guy gi marle ña ngay di demee wet mbay guy gi moom lañuy ñu jàkkaar lool marle moo ñu gannaaw ndeysaan attention ndeysaan ñoom ñaar foqante nañuy baaram ca kaw attention door attention Marley door na Mbaye Gouy Gui jàpp la ilaha illallah Mbaye Gouy Gui Marley attention Mbaye Gouy Gui nga koy ŋoobu ma ngay ŋoobu Mbaye Gouy Gui fam jàpp baax na Mbaye Gouy Gui jàpp na daa bëgg a sigi bu sigee day roof caxabal wéeru la ilaha illallah gis nga dugal na caxabal mais agul Mbaye Gouy Gui Marley Mbaye Gouy Gui Marley ndeysaan mbokk yi attention Mbaye Gouy gi jël ni tànk ba wa def na demi flexion tibb ko lay laax la laa mbay guy gi mbay guy gee ngay forcé action mbay guy gi daw na war na ko ndombo war na ko ndombo lan lay def yëkkati na ko ba ca kaw door na ko ci suuf jeex na wala jeexut mbay guy gi marle mbay guy gi marle ndeysaan mbokk yi mbay guy gi marle mbay guy gi yëkkati na ko ba ca kaw dëbbaat na ko tulliwaat na ko ci suuf lan la bëggaat mbay guy geeg marle lay laax la laa marle jàpp na marle jàpp na mbay guy gi yëkkati na ko ba ca kaw ey laa ilaaha illallah ey Marley génn na ca Marley génn na ca taxawaat na ñoom ñaar jàkkaarloo waat nañ mbay guy gi Marley bëri nañu lu neex mais mbay guy gi amoon nga penalty nee naa la war ndombo tii la ci lamb soo ko amee da nga koy marqué waroo koo raté ndeysaan mbay guy gi Marley ndeysaan mbokk yi Marley dafa mën a bëre Marley dafa mën a bare ndeysaan xale bu géej waaye bi mais lamb loo gis yaa ko lamb loog nee na moo formé moo formé Marley. moo yor mbaru cuure. ndeysaan mais Marley li mu bëree dafa rëy. gisoo ko dama siy génn ba pare. lay laaxee la la laa mbéy gi jàpp na. Marley ngay jéem a door ba ngay door bu sew ca suuf attention laay laaxee lan laa laay laaxee lan laa mbay guy gi amaat na ko amaat na ko day jeex wala du jeex mbay guy gi amaat na ko mbay guy gi amaat na ko mbay guy gi amaat na ko laay laaxee lan laa bii yoon Marley doo ci génn Marley bii yoon doo ci génn est-ce que Marley dana ci génn est-ce que Marley dana ci génn laay laaxee lan laa hey mbay guy gi daan na Marley daan na ko ba bës ko mbay guy gi daan na Marley yëkkati na ñaari loxo ya laay laaxee lan laa oh song na ko suba ndeysaan mbay guy gi jooy na jooy na ndeysaan dafa jóge ci defet ndeysaan mbay guy gi ndaanaan la mbay guy gi daan na marle mbay guy gi daan marle mbokk yi ndeysaan oh cey loolu sey mbay guy gi

ndeysaan ayca xaadim demal ayca mbokk yi ñu ngi naanu ci grand combat bi dimanche le 12 novembre 2023 journée Baye Ndiaye journée ki nga xamante ne bii moom mooy Baye Ndiaye Albourakh Events mbokk yi arbitre suuf la na génn seen diggante diggante Tapha Tine ak ki nga xamante ne bii mooy Eumeu sen ña ngay foqantey baaram foqantey baaram ndeysaan ñoom ñaar ñëpp ci Bombardier la ñu mujjee Tapha Tine ci Bombardier la mujjee Eumeu Sène ci Bombardier la mujjee foqante nañuy baaram fippu Tapha Tine Eumeu Sène ndeysaan mbokk yi mi ngi noonu combat bu neexe ngi noonu ndeysaan Baye Omar Diouf sama xarit bi Serigne Omar Diouf borom léppay baax maa ngi lay ziar di la kontaane ndeysaan Serigne Omar Diouf aka am jom bu mu doonee xale la teel a noppal way juram yàlla na sa jàmm yàgg sama xarit bi sa yéene ci man xam naa ko yàlla na ko yàlla yeggale sëriñ Omar Diouf borom léppay baax ku mu ñaanal say mbir baax sëriñ Omar Diouf kenn du yow. attention Ama Sène Tapha Tine jàppante nañ door laa ilaaha illallaah kor Tapha Tine Ama Sène Tapha Tine Ama Sène laa ilaaha illallaah Ama door na ko mu daanu rëpp na day jóg wala du jóg Ama door na ko mu rëpp laa ilaaha illallaah Tapha jógaat na laa ilaaha illallaah ne woon naa leen day am xeex la na arbitre na arbitre soufflé na Ardo dafa demal naa ni Sow ñëwaat dafa demal ca Ardo ñëwaat loxo newoon naa ko Modou Mbaye sànq newoon naa ko combat bi faaw mu xeex ndax ñoom ñaar dafa day dóor te am ma day fayu ndeysaan mi ngi noonu xeex nañu bëre nañu ndeysaan mbokk yi dafa tin ma nga ca médecin ba ñu koy faj ilaha illallah Eumeu Sène yóbbu na Tapha ardo yóbbu na ko ca médecin ba mu naani soow yóbbu na ko ca médecin ba ñu koy diwal microcorop yóbbu na ko ca médecin ba ñu koy fompal ak alcool yóbbu na ko ca médecin ba ñu koy fompal ak coton ndeysaan mbokk yi Tapha Tine Eumeu stade bu ñëpp ngi jóg taxaw bëre wallub teen la ñaari mbër yu dong ci biir géew bi lu mu metti metti ñoom ñaar dong ci biir géew bi Xaadim mbamba ndeysaan Tapha Tine jóge na ca médecin ba ma ngay wax ak entraîneur am jox nañ ko ndox ma ngay sëlmu Tapha Tine Eumeu Sène ndeysaan waaw waaw arbitre oowaat na leen ci biir géew bi oh Tapha Tine nañ ko dellul ci médecin bi Tapha Tine nañ ko dellul ci médecin bi ndeysaan ma nga noonu ca médecin ba ñuy faj Tapha Tine gi noonu ci médecin ba ñu koy faj ndeysaan xeex nañu léegi dañoo foqantey baaram gis nga ama laaw kor tafa tafa tafa tafa ama door gis nga dugal épricule épricule boobu moo ko yóbbu ardo épricule bee ko yóbbu ardo ndeysaan gis nga ndeysaan ñoom ñaar dañoo xeex mel ni carte gi day waaj a lamber ndax ñu bëri dañoo yaakaaroon ne xeex bi faveur u Tapha la mais fi mu toll nii xeex bi ki nga xamante ne bii moom mooy Eumeu Sène moo avantage gum xamaguñu lan mooy xew ci kanam nag. mais daa ne mën a door dis loxo ko gën. waaw mën a door dis loxo ko gën mais Eumeu épercule bi mu door Tapha Tine moo baax gis nga bi mu ko ko dooree bi ko bàyyee dafa glissé bi mu glissé dafa rëbb. fii fii fii làmb mo mënoon naa jeex mais Tapha am na rapidité tuuti ci combat bi looloo tax mu gaaw jógaat. ndeysaan waaw mi ngi noonu ndeysaan cey bi combat. am ma Eumeu Sène arbitre la waat na genn seen diggante ñoom ñaar am Tapha Tine moo ñu won gannaaw Eumeu Sène la ñu jàkkaar lool Serigne Omar Diouf borom léppay baax sama xarit bi ndeysaan maa ngi lay ziar ku baax di la bàyyi xel bu baax a baax jàppal na fu ma mën di nekk sama xel a ngi ci yow sama xalaat a ngi ci yow sànn Tapha Tine Eumeu Sène ay waay Xaadim Bamba kooku dafa bokk ci man combat bi dara duma ci rëcc incha allah bu ngelaw uppee sax ndeysaan dinaa leen ne ngelaw upp na Tapha ak Eumeu Sène ngi lewaatoo attention daje nañu léegi Tapha Tine ak Eumeu Sène Tapha moo ñu woon gannaaw attention Tapha cokkaas na dafa cookaas na léegi foo xantawaat nañuy baaram bu ñu bàyyi wante dañuy doorante wala dañuy tegante bopp jàppante dafa tin am seen journée Baye Ndiaye Albourakh Events ndeysaan mbokk yi ña ngay lewaatoo ñoom ñaar ku ci nekk dër na ci sa ay tànkam dafa tin ak am seen dafa tin la ñu jàkkaar lool am seen moo ñu won gannaaw wala am seen la ñu jàkkaar lool dafa tin won ñu gannaaw mbokk yi am Amdi Moustapha ak Tay Singa attention Ama dafa mel ni dafa bëgg a dem Ama dafa bëgg a jëli su demee lan dafay fekk dafa cookaas na attention hey Ama dooraat na laaw gauche droite attention laa ilaaha illallah ay ay ay laa ilaaha illallah dafa door na dafa door na Ama jël na tànk ba Ama jël na tànk ba hey dafa tin dafa tin yëkkati ko. Tapha Tine day toog ci kaw wala lan lay def Tapha Tine daan na Eumeu Sène Tapha Tine daan na Eumeu Sène Tapha Tine lan moo xew lan moo xew lan moo xew lan moo xew lan moo xew lan moo xew jarul vaar Tapha Tine daan na Eumeu Sène ay bët la ñor jarul vaar jarul vaar Tapha Tine daan na Eumeu Sène arbitre ba vaar la dem xanaa ñu xaar ko rek ba xam su ñëwee lan lay andi ndeysaan mbokk yi Tapha Tine ak Eumeu Sène ndeysaan oho Tapha daan na ko lu arbitre bi wax lan la arbitre bi wax Xaadim Bamba jalal ma ñaari mbari ci biir géew bi xeex nañu bëre nañu ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk remplir nga sa contrat waaw waaw ñoom arbitre baa ngay concerté wu Tapha daan na Eumeu Sène daan na Eumeu ama ama jàpp na oom ya ndeysaan ama démérité woo ama gaynde nga ama ndaanaan nga ama bëre nga xeex nga macha allah mi ngi noonu Tapha ñu koy sotti ay saafaraam ndeysaan le géant du Baol daan na Tapha ndeysaan mi ngi noonu oho lamb ngi noonu ndeysaan mbokk yi journée al burax pro events la woon Baye Ndiaye oh laa ilaaha illallah amat xeex na tafaatin xeex na laa ilaaha illallah ñoom ñaar ña ngay waxtaan ndeysaan le choc des gladiateurs la woon ñaari ndaanaan la ñu woon ñaari champion la ñu woon ku ci nekk def nga li nga war a def macha allah tafaatin ak ama seen remplir nañu seen ay contrat macha allah mi ngi noonu mbokk yi dig daje incha allah beneen yoon ci beneen làmb fi ci Leewtoo TV. mais Socé Socé Socé waxoon nga ma ko ndeysaan Socé nga noonu doomu ndey Tapha Tine ndeysaan mbokk yi ndeysaan oh oh mbokk yi Socé maanee maanee ngi noonu laa ilaaha illallah soose maanee ngi noonu soose ngi noonu soose ngi noonu ndeysaan mbokk yi ndeysaan man ay sëriñ ma woo a ma menacé soose ndeysaan nee naa la du ma ëmb ab tabax di ko indi fii waa Pikine di ko daan teel teel mais barki démb ca face à face ba da nga waxoon lu doy waar soose barki démb ca face à face ba ndeysaan ndeysaan mbokk oh saa Touba lay saafontel ndeysaan mbokk yi oh, saa Touba lay saafontel ndeysaan saa Touba lay saafontel ndeysaan ndeysaan Tapha Tine nga noonu Tapha Tine ngi noonu ndeysaan ndeysaan soose ngi tuur xewal ndeysaan soose ngi tuuru xewal ndeysaan oho président ngi noonu borom prési production ndeysaan macha allah tey mais soose ñaari kaddu rek soose danga maa waxoon lu garaaw ndeysaan oho ci alquranu bi biñ defee open press laa ci dugg billahi wallahi quatre mois yi taba jël combat bi yëpp sama loxo dugg ci biñ defee open press laa ci dugg ndeysaan lu waral jooy yi ndeysaan xol bi ngi noonu saa ngi noonu ndeysaan saa Touba ndeysaan ndeysaan bawol bawol yaa ngi noonu ndeysaan ñëpp kontaan tey ho ho ndeysaan coach su gii ngi noonu tey Tapha Tine coach su moo ko andi ndeysaan ndeysaan ndeysaan peere ngi noonu mu jekk ma ma daan ko moo di bér ma jekk bu ma jekkoon na ma seen daan ko tey du doon ak bër ci man lii ma def tey moo di bër ci man dafa maa jekku ñëpp wax ne moo la jekku moo lay daan ma lan la la jekkoo ci mystique wala ci xeex bi ci lépp la ñu ma wax ne moo la jekku parce que dañu moo moom moo daqa xeex moo daqa bëre moo doole ma ne nag kon man ma moom jël bi rek ma daan ko rek dal li ñibbi premier round bi Tapha Tine dafa encaissé coup bu garaaw ba kaaw loolu bi loolu dafa encaissé loolu dafa encaissé coup parce que coup boobu ñun ñëpp xamoon nañ ne dina ko dóor coup boobu Tapha moo la gën a xam ne waaye dina ko dóor coup mais xamoon nañ ne premier round bi ñun ñëpp xamoon nañ premier round bi ni lay demee mais deuxième round bu ñëwee dama koy daan waaw. station père kaay si ta kaay kaay kaay kaay sa Touba c'est mon ami le grand marabout de tous les parce que xam nañ ne nga lu rëy ci làmb ji. Sa Touba ngi nii l'homme de Bawol ah da Babacar nañ ko boole kañ jël ko pare parce que bu dee dañuy xool ci wàllu bëre parce que ma seen bett nañu bari ah waaw tey xanaa waaw parce que ñu bëri dañu yaakaaroon ne oh parce que xeex waaw waaw loolu ñu mooy attaqué mooy def rek mais loolu yëpp ci ëmb lañ ko gis ëmb moo attaqué blessé adversaire am mais dafa ëpp doole ci kaw mu def loolu lépp ban erreur la def ba daal erreur bi mu def mooy fi mu dugg dafa dugg foo xam waru faa dugg ndax da dugg jotagul dugg bi ñoragul waaw ëmb dem waaye ci tuuf ci kawam daaneel ko jënd boo xam ne kenn mënu ko werante man damaa xamul sax lan la gars yi doon wuti ci vaar bi <laughs> waaw dëgg dëgg waaw waaw waaw gars yi nag c'est pas parce que am nañ vaar rek lu ñor ñu leen waaw waaw vraiment am na yoo xam ne jarul vaar jël bi leer na mais non jarul vaar jarul vaar jarul vraiment jël bi leer na sportif la waaw waaw lim fi bëre tey jii kenn foogu ko woon non non non mais dañ koo daan lamb moo mel noonu te lamb doole de mbër. waaw doole. mais Tapha ñu gis ñu dominé ko ci combat bi. mu génn ci am ndam. lu ko ci génne waaw non dafa am na doole parce que bëri doole avant tout doole boo amee doole ba pare nga wuti technique. nga jàngi bëre mën a bëre. dafa am na doole mën naa bëre. et xam na et puis. c'est vrai que dañuy wax ni ponkal yeerul ci xale yeeli xaw ma lan mais. yeeli tafaay yi. mu munul woon a dem ba yëkkati ko. li ngay wax li koy firndeel pour bi mu jël. bu amul doole. non du dem parce que gaañu na. découragé na tuuti pas découragé mais xaw na sonn. mais yàlla dogal na am na xel. ba dellusiwaat na ci combat bi ba am ndam. mais nag man ki may gën a encouragé daal mooy Eumeu Sène. waaw vraiment waaw parce que man daal Eumeu Sène. vraiment jàmbaar gi ñuy wax ci moom. bañkat gi dox du wéer. waaw tay si nga dëgg la wane na ne ndaanaan la mbërkat mbër la mhm. et puis vraiment ñu ñaanal ko aussi li nekk ci kanamam mhm. am na yeneen i combat mais tey nag c'est Tapha et puis nag yoonu Tapha mooy commencé nag di ñëwaat ah, ah, waaw yoonu Tapha il faut ñu nangu ko day parce que Tapha booy laaj mbër ba gis ko dootoo ko laajte Tapha tim xam nga souvent ngay dégg ma naan la sama roi des arènes na ngi parce que jëmm ji la jëmm te yàgg na am na expérience ci làmb ji xale la aussi du mag noonu amagul 40 ans ah, kon yaakaar naa ni nan ko ñaanal li nekk ci kanamam te léegi nag kan lay jël. waaw est-ce que voilà booy ñaar Modou Lo waaw Sa Thiès bañul bu ko Sa Thiès bañul. te ah, ni mu bëree tey ak seen Sène gars yi dinañ ko gën a ñeme. Ah, waaw ah, ñu bëri ñu ko ragaloon. Ah, waaw dinañ ko ñemee am waaw ndaxte ñu bëri gis nañ ni donc dafa bàyyi xel de trop Eumeu Sène. da koo bàyyi xel de trop bi nu léewtoo Tapha daawul def noonu. dan daan léewtoo mu jël élan. dóor mais Tapha ma dafa ñëw taxaw ci ay oomam nag. combat rapproché la ko Eumeu indil. ku foo gis ku mën a xeex. buy mm-hmm. bëre. Mm-hmm. taxawal ci tànkam. am temps wu xàcc buy xàcc ngay dal ci kawam. mais di am na benn tour sax bu mu dóor dalul. ma ne ko bu ko defati ma ne kii de bu mu ko def bu ko defetee ëmb dina ko jël. bu boobaa du ko dugg ci wet ki lay gar dem yoon. dimanche ñu génn ci mën nañ xaar mën nañ wax ne Tapha Tine léegi le premier janvier lay xaar diggante Modou Lo ak la. mën na xaar loolu mën na xaar. Euh, Bombardier loolu. rëg rëg rëg rëg rëg rëg Lac de Guiers Siteu je sais pas waaw parce que Lac de Guiers amel na ko revanche. waaw waaw loolu tamit mi ngi ci combat yooyu. waaw tamit combat yi naan nag combat baa ngi noonu nag. Tapha Tine parce que Balla dinaa leen jox benn scoop. makan sama doom la. mais combat boobu mënatul la nekk. lu tax après information yi ma jot. Ah, combat boobu mënatul la nekk. même Gaston ci boppam. libéré na. Balla Gaye Eumeu ah, ma wax. ok yéen laa koy jox. Ah. Gaston libéré na. Eumeu Sène Eumeu Sène. Eumeu kon day dem bëri Sa Thiès. Sa Thiès. Eumeu lu neex la. Balla Gaye Tapha Tine. ok combat la revanche. Balla Gaye Tapha fii ci diggu arène bi beneen combat ngi noonu moo tax vraiment te lamb ji nag suqali ku wax musul sax dee. Hmm. mais. ni muy doxee tey ji promoteurs yi njàmbaar gi ñu amee vraiment ba liggéey liggéey yu rafet yi ñu liggéey. dafa jara sant yàlla. ñu ñaanal leen. bu ñu continuer yaakaar naa na baax. mais mais mais Père Marley Mbaye Gouy Gui. waaw nan nga gisee combat boobu. kan Marley. Mbaye la mu waxoon ca signature balaa daal. def na ko dafa ne ma woon bàyyi leen ñu ngeen di. favoriser favoriser ah. bàyyi nu. Ah. bu keroogee di ngeen xam ne maa ko ëpp doole maa ko ah. def na ko. il a Daouda Fall loo gis ca non caatu Daouda Fall moom avenir la. kooku avenir la nan ko denc combat yu bëri yu ñu koy wax na bañ. jotagul xale day bëree combat xale. mais da ngay gis ñaari xale yoo xam ne ñu ngi demandoo. ñu ne bëri leen. buñ ko ko joxee na bañ. na mi ngi mel ne Sa Thiès Boy Niang dañ leen man. y' a quatre ans laa leen waxoon kaa leen boo ñaan ma père bëggu ñoom xaalis xaaral ba nu màgg tuuti te effectivement bi nu màggee lekk nañ ci dara mais comme daa caatu daaw dafa am na xeeti lamb yoo xam ne bu ko ko joxee na bañ nay fortaatu rek mais mais père tey nan nga ñëwee nan nga gisee ñëw gis nañu tey mën a dafa non mais Balla sax li ma jaaxal dafa xaw a jàpp format ah yéen seetlu leen ndaa naan baa ngi noonu wéree dara ko ndaa naan d'accord boo yoree dara dalu ko ndaanaan la. waaw waaw mais bi ma ko gisee mu fekk damaa kontaan. parce que man bëgg làmb ji mbëri yi di wér. di bëri culture bi di neex. xale yi di bëri lamb di neex. xoolal tey li am tey. Sénégal yëpp moom la ñuy seetaan. Ama Baldé Modou Lo France la ma fekk. mais Sénégal yi boo romb lamb la lay wax. donc suñu culture la. per ñëwul ci lamb foog leneen li mooy yéen ñii. waaw souvent dañ leen di jiiñ. merci yéen a yàq affaire bi. waaw mais. tamit dëgg la li Baye la wax barke déew il a raison ku ngeen tàllal micro wax loo ko mu wax njaaxum mais affaire am la mais bu ñu micro mais nga wax ca jàmm lii ma wax nii mën ngeen ma ci waxal dara leen ma waxal dara de mais père ñu ngi ci Ama Baldé Ama Baldé ñëwul ñu ci ngaa topp Modou Lo ci wax nga gis Ama ni mu dikk ni mu bëri Ama neex na vraiment Ama bëri na bëri bi mu war a bëree la mu waroon a def yëpp def na ko làmb moo metti te mu doon bëri nag ndaanaan koo xamante ne nii bu jëkkoon bu bëree ba pare day for gàllaaj léegi dootu takk gàllaaj donc y a changement ah. changement boobu lan la loolu mbër da koy jàng Modou il a changé ah. ni mu meloon melatuñu ba pare physiquement ah. Modou dafa taxaw garab doole la indi. indi athlétique ah ak ama mais li ma ci jaaxal ama dafa bëri bëri bu rëy ñu bëri seetlu mu lool bëri bu neex la doon. am ci defet mais noonu la tamit lamb leneen li may tàggoo rek mooy waa Pikine. waaw ñu xam ne lamb moo mel noonu. na mu indi ay victoire. keroog bi Tyson di daan Moustapha Gueye keroog bi Balla Bèye numéro 2 di daan Gris Bordeaux. ah keroog bi Eumeu Sène di daan Bombardier Ama Baldé bi mu fi daan Papa Sow Boy Niang bi muy daan daal yooyu yëpp yéen a ko moom mais donc bu dara amee mais noonu ànd ak xel mu dal balaa ngay tàggatoo tey ni Eumeu Sène def bàkku bàkku Boy Niang bàkku bàkku Eumeu Sène bàkku bàkku bàkku Falaye Falaye Tyson loolu tey bi nga ko dégg lan ngay loolu mooy Pikine mhm. voilà la bëgg amaa amaa bu tuusee saa bu tuusee bàkk bakku tey sax kon tey bu amoo dajalee bàkk yooyu yëpp bàkk ko mooy nanu juboo nanu bokk ndey nanu bokk baay. Ah, am na benn waay bu ne ma daa bëgg ñu juboo rek ndax mu daan moot loo. ñu ne ma mu ne ay daa bëgg waa Pikine juboo. Ah, ndax ñu daan moot loo. mais père Boy Niang kii moo neex. mais bi doon pression le fait que Ama Baldé daanu. daanu yow euh, foofu la ñuy xamee daanaan nag. d'accord léegi nag mën xam ndax maam am ndaanaan la wala déet ci kombaam ak moot Lo mais nag dama leen di yëgal leen na combat bu metti lay doon nag waaw combat bu metti la parce que Modou Lo ko wax man waxuma ko de Modou Lo moo ni bëreeg Ama a yomb bëreeg Boy Niang parce que day calcul te bëri ba daan ko ba pare kon bu jafe bi moo moo ci topp mais daal que le meilleur na yàlla defal leen merci May ak diggante bi nga xamante ne am lu xewoon seen diggante stade ñëpp di yuux Modou ko. di ko tàcc di ko tàcc. Ah, loolu loolu parce que da ngeen a bokk ak Modou Mbaye. Ah. lamb ji mooy Modou Mbaye Modou Mbaye mooy lamb ji yéenay lamb ji. Ah. loolu la parce que yéen ñëpp ay frère Modou Mbaye ñoom. alkaat yi cest à du mu comprendre lamb. xoola franc nan ko baax. mu baax waaw mu jël ndënd bi dem teg ci diggu géew bi. loolu mooy mus di doon lamb c'est-à-dire ne dañuy indi policiers yi te duñ leen wax règlement wu lamb. bu ngeen gisee champion bu daw jël mais Mbaye Gueye na ci alkaat waaw waaw li may wax de ci yéen ñi laa waxe mm-hmm. waaw waaw bëgg a dugg alkaati bi kii mu dóor ko amoon na fi fii lu ne am na fi. mais léegi dañoo discipliné. Mm-hmm. yi léegi réew mi booy yi dañoo discipliné. Ah. yu bëri am ci làmb amatul. yu bëri daan yi baal leen ma dégg ngeen. mais Socé Socé Socé waxoon nga ma ko. ndeysaan Socé noonu doomu dégg Tapha Tine ndeysaan soose ngi noonu ndeysaan mbokk yi soose maane ngi noonu ndeysaan mbokk yi soose maane ngi noonu la ilaha illallah soose maane ngi noonu soose ngi noonu soose ngi noonu ndeysaan mbokk yi ndeysaan man ay sëriñ ma woo di ma menacé soose ndeysaan naa la du ma ëmb ab tabax di ko indi fii waa Pikine di ko daan teel teel mais barki démb ci face à face ba da waar soose barke démb ca face à face ba ndeysaan taxawal taxawal taxawal ma loo ko bu ndeysaan mbokk yi oh saa Touba lay saafonteel ndeysaan mbokk saa Touba lay saafonteel ndeysaan ndeysaan ndeysaan tafaatina nga noona tafaatina ngi noonu ndeysaan ndeysaan soose ngi tuuru xewal ndeysaan soose ngi tuuru xewal ndeysaan oho président ngi noonu borom président production ndeysaan macha allah cey mais soose ñaari kàddu rek soose danga maa waxoon lu garaaw ndeysaan oho danga maa waxoon lu combat bi bi ñu defee open presse laa billaahi wallaahi quatre mois yi Tapha jël combat bi sama loxo dugg ci bi ñu defee ban pare laa ci dugg ndeysaan yaa yow Cheikh Mbass ngi noonu saa ngi noonu ndeysaan saa Touba ngi noonu ndeysaan mbokk yi ndeysaan ndeysaan ndeysaan bawol bawol yaa ngi noonu ndeysaan ñëpp kontaan tey ho ho ndeysaan coach su ngi noonu tey Tapha Tine coach su gi moo ko andi ndeysaan ndeysaan ndeysaan pere ngi noonu mu jekk ma ma daan moo di bér ma ma bu ma jekkoon ma seen daan ko du doon ak bér lii ma def tey moo di bër ci man daf maa jekku ñëpp wax ne moo la jekku moo lay daan man lan la la jekkoo ci mystique wala ci xeex bi ci lépp la ñu ma wax ne moo la jekku parce que dañu moo moom moo tax a xeex moo tax a bëre moo ëpp doole uh-huh. ma ne nag kon man ma moom jël bi rek ma daan ko rek dal di ñibbi premier round bi Tapha Tine dafa encaissé coup bu garaaw ba gaaw loolu bi ma amee lan nga yëg non dafa encaissé loolu dafa parce que coup coup ñëpp xamoon nañ ko dóor coup boobu Tapha Tine mais xamoon nañu premier round bi bi li lay demee mais deuxième round bu ñëwee dama koy daan. félicitations père kaay si ta kaay kaay kaay kaay si ta Touba c'est mon ami le grand marabout de tous les temps sa parce que xam nañ ne lu rëy ci lamb ji sa Touba ngi ni l'homme de Bawol ah da Babacar nañ ko boole kañ jël ko ba pare